neex ci kat yi mooy lépp duy katel dem kat rakki rakki di nan ko rek woo sa lëf lu xeeñ mi gise de boobu lay rof sa biir data nday di ko rakki yaa toj sa cont yaay feccal mi gise yow bokk ci boy arnaqueur yi dégg naa eh, yow dinaa la inspiré lu garaaw suba dégg naa rakki daal cagga rek lay doon us dollar us make-up us dajalee xaalis katt ko li ma neex ci katt yi wowow mënuma ko nettali li ma wax ci katt naa gën a taxaw jël sama inspiration mi yaa gise toj sa cott ndey yow yaay feccal mi yaa gise yow yow la ni sàcc xaalisu jàmmoor yi di ngay sa bun bi di la ko kattee yow Mia Guissé fecc katu caga nga am kii mooy fecceel Mia Guissé dina miyi miyee gise gisee sa biir da jaw nday ubbi sa data day ba mu yaatu organise fa Bercy invité Mia Guissé muy bonde sa biir copparatu nday naan li neex ci kaati yi mooy rakkee dinañ ko rey rakkee dinañ ko kat ay koy yu neex woo rakki <laughs> rakki dinaa téegal sa ndey doomu xaram ji yaay feccal miyaa gise yow doomu raam ji caga yi lu nu dajale yow lañ koy jox rakki di la ci kat ba ma xoolee sa piercing bu yaatu bii nga bënn sa kii bii maa kii yee damay dëgg sa ndey de sëriñ bi ngay fëgg naan ci bàñño bi laa jëb apartement bi suba lay jeex ngeen doxaan seen ne yéen ñëpp maa jóg di apprier de xaaral amore amore amore amore ah sama jabar ji tamit nelaw na Serigne fi mu toll nii damay live. Vai veloce. léegi nag rakki yow moom dinaa rakkal sa dajaw ndey rakki sa data yaay laay def def ko rakkalu xar jox ko xar ya nekk ca Kébémer ñuy soccoo lëfal ndeyam yow moom faaw ma toj sa cottu ndey rakki yaay feccal miyaa gise miyaa gise ngay feccal mais gise du ma ko ci boole de ndax defuma dara mais yow miy ànd ak dóorkat yi ñu lay kat yow lay toj sa cottu ndey waaw kay sa lëfal ndey dina mel ne diggante mi yaa gise ak maabu lee maabu dinaa ko dekkalaat sa biir tuunu ndey incha allah sa dëjëw ndey ay waay us ndeke xam nga li ngay def dafa bon nga ne li nga lekk ci xaalis jàmmoor loolu lépp di nga day data ndayam balee mën a bàyyi ku lekk ku nekk la nga lekkoon di nga day tuunu ndeyam mu génn ngeen joxe nit ñi seen xaalis yéen ak aadamo rek fa ngeen jëm ndox du fa am seen yaay dina ci am yoon seen papa yi am ci yoon ku nekk naa la jënd sa foto yaay sa foto papa information yi na ñëw fi nga dëkk sa foto yaay sa foto papa say sœur dinaa toj seen cottu ndey ñoom ñëpp ba ni ngeen di fayee xaalisu jàmmoor yi seen yaay laay teg ak seen papa ndax ñoom ñoo jur sàcc ñoo jur wëyu ñoo jur bandi lu tax jóbbuwul leen daara ñu téegal seen ndey kokki daqaar seen ndey ay yari daqaar ba ngeen tal alxuraan di ngeen di mokkal ngeen tem di dóor dinaa lekk seen data ndey seen yaay laay taf toj seen cott ndey doog leen ciy booyee ku nekk sa yaay naa ko affiché ak sa papa réglé seen dajaw ndey doog ñëw ci yéen comme que mënul leen a yar dinaa téegal seen ndey yéen ñëpp Ousmay Këbëg ah job dollar ak dollar yi yow sa data ndey da nga doon CFA bay doon dollar yow xaalisu gàmm bi dalasi bi sax a gën a dëgër sa lëfal day nga ne yow dollar nga dinaa toj sa cottu nday dollar yoo xam ne da ah, dinaa osé seen yéen ñëpp naa dëgg seen nday job dollar ak ësël ësëleew uusu euh, ak met ki nga ñoom ñëpp dinaa toj seen cottu nday xaaral rek bala ma leen a bàyyi fin jëm ndox amu ci dinaa lekk seen data yaay bu baax waaw xale bu jigéen bi laa doon vocalante léegi xale bu jigéen bi mooy Liza ndax gars yi dañ koy faral di gis saa yu gaa yi sàccee xaalis ci moom la ñu ñëw iri ñu nekk benn appartement moom nag nee na appartement yi sama xarit la nag sama xarit la mais day de ne nee na appartement yi tournée moo ko fay indi wala clip mu dajeeg Ezel di def ay vidéo nee na nag bàyyi na leen ndax jot naa samay mesure ba wax ak moom sama xarit la neena dina leen bàyyi àdduna ak alaaxira ndax du ànd ak sàcc du ànd ak wëyu du ànd ak kuy égressé kii mooy Lisa ñaari ñaari ñaari jigéen la leen di gisal lu ci ëpp Lisa kii moom caga la kii ñoom ñépp ko kat kii kii ñoom ñépp ko kat moom munta dox sax moom moo gën a toccot ndeyam xale bu jigéen bi moo gën a toj cottu ndeyam moom dañ koy utiliser dëkk ñoom ñëpp laay toj seen dafal ndey na ba yow xam nga lan moo la yàq mm. yow danga ngaa war a bàyyi ni ngay waxe yow dangay wax mel ne kenn dula la écouteur yi moo tax. waaw mais da ngeen di wax di ñiñ mais net loolu nekku ci yooyu man aw ma taal. la. aja ñi ngi lay déglu. mooy li ma noonu man sama kaa kii la Ousse Mayka. waaw Ousse Mayka. xam nga dama ko njëkk a envoyé kii vingt ne ma dangay gagné deux cent mille. Ousmane may këpp mooy kii karaté sax mooy kii non du kii. kii la. kii la waa kii la waa. moom kay ba ma ko xoolee laa xam ne mooy Ousmane Kopp data yaayam fu mu toll nii fa nekk di sangu nii de piscine lay def continuel. léegi nag mu ne ma boo ko envoyé dangay gagné deux cent boo ko envoyé vingt après mu ne ma gagné nga ba pare dangay dolliwaat yeneen vingt mille après ma envoyé la ko ma dolli yeneen vingt après nag ma bloqué wax. yéen nag ñii danañ tegal seen ndey de waaye yéen tamit danañ wax ak yéen maanaam yéen xaalis bi ngeen di joué ci naar bi lan ngeen ciy gagné yéen mënu leen a gagné mënu leen a football ah lu ngeen di doy xaalis bi li ngeen di vingt mille francs yi ngeen di jël naat bi quinze mille francs bi xajul woon ci yow wala utiliser dara mën a def dara dajale ko ubbi bitik wala nga jaay dara lu tax mënu leen loolu yéen. yow trop envoyé naa la audio yi teg ko kay. non waxuma la teg ko de dama ne la li ma la wax laa wax dama ne la xaalis bu ñu leen di jox ñoom pour ñu jëlal di def fubal lu tax mënoo koo dajale am loo ci def yow bambari. moom ma ko woon sama papa moo ko moom. ah sa xaalis su bàyyi ngay jële di ko kaat ah. yow ci suuf yow moom uus may këb loxo ma uus data dayam lu mu la def baax na yow yoroo loo sàcc di jël sa xaalis yaay di ko sàcce di ko jox ay nit kon kay da ngaa sàcc ñu sàccaat la yow moom sa kàddu ko lijjanti uus may këb bu la neexee xaalis boobu moom nga may këb si sa cokku ndey duma ci wax waaw bi nga jël ci gel bu la neexee may këb ci sa cottu yow uus may këb boobu duma ci wax yéen tamit defal ndànk sénégalais yi déglu leen ma bu baax yéen yéen déglu leen ma bu baax dama leen di wax benn affaire gis ngeen ñii bu nu tojee seen lafal ndey tamit nanu kattaale ndeyu ñi nga xam ne ñoom ñooy joxe xaalis bi pour ñu leen di juyel ñii ay dóorkat lan dëgg la mais ñoom tamit lu ñuy dox di juyee yow yoroo xaalis 15000 francs 2000 francs ci xale bu ndaw 17 ans 16 ans doo ko dajale doo dajale xaalis bi nga wut loo ci am. doo ko dajale yow cinq mille cinq mille vingt mille vingt mille par jour vingt mille par jour xoolal ñaata bu année bi ñëwee mën nga cee def lu rëy am xaalis bu bëri nga koy gérer di xoole ñu lay dóor naar bi di la dóor ñii di la dóor yéen tamit ñu toj seen cott nday jinaa ah. ñii ay doomu xaram la mais yéen ñiy joué tamit ak di joxe seen xaalis bi kenn gënu leen a kat seen day yëfu dof yooyu mooy lan. xale bu ndaw 17 ans 16 ans 18 ans nga am avenir bu baax yow nekkoo milliardaire yow liggéeyoo amoo un million par mois amoo deux millions par mois tuunu ndeyam yoroo ko da ngay taxalee may ma papa may ma mille francs euh, du may ma cinq mille sama fax bi may na ma vingt mille francs fii la ni profité na Saint-Valentin bi téega seen ndey yéen ñëpp parce que lii la ni wër bu jotee ku ne day defaru ba naaj lamsal jigéen ñi ñoom rek koy joué it ñin fi dóor ñëpp xaaj bi ay jigéen lañu duñu ay góor de ñin fi dóor ñëpp xaaj bi ay jigéen lañu parce que li ñuy dajale seen far yi di leen ko jox comme kii lim fi wax nee na xaalisu bàyyam la sàcc ak keneen ak keneen moom la ñuy jël di ko joué ñii lu leen def rek dagat na dama ciy jàpp nii rek parce que sàcc baaxul mais mënoon naa cee maanu xam nga lu tax ma waroon cee maanu parce que ñii lépp lu leen def ñoo ko teg seen bopp parce que xaalis bi ni jël di ko jox ñii pour ñu leen di jël naar bi am na fu mu xaj buñ ko dajale woon man cee liggéey ubbi ci bitik wala ñu ubbi ci salon wala dara comprendre nga est-ce que yéen comprendre ah, ça va dof manqué sama yaay neen duma ko mottali en fait parce que bu di dul nag la ñuy utiliser xam nga fémi bu ko defee nag nga caga ba dee naan ko vingt mille vingt mille waa loolu garaaw bu subaa naa la ko wéef ma dugal la ko nga de ko tàyyi ci weef bi mu retiré tuunu ndayam nag dem xool ku tekkiwul cottu ndayam koo xam ne day dóor ko ci mel ne Ousmane Kab mii yaa ngi dégg mu ne ko us oh, dama dégg nga ne da ngay pour nga gagner dugal ma famille mu jël famille yi katt côté ndayam nag bu ko defee nag us may këp nag jël famille yi araw ci cokku ndayam dabalaaj ci tuunu ndayam nag moom mu envoyé ko message ne ko gagné perte ga su ko defee muy wër réseau yi di jooy noonu sama vingt mille lanu dóor yaa dóor sa bopp kattal sa nday xaalis bi xajoon na ci yow sadam ndayu lii rek dama ne la ñii ay sàcc lan de mais ñiy def affaire yi tamit ñi koy jéelu ñoo gën a toj seen cott ñoom tamit ah kenn xamul lii lan la Mbos na xamu. maa ngi ngi si jàmm. waaw yaa ngi si jàmm yow. oui sant bu baax. maa lay déglu. gis nga booy yi booy yi seen arnaque yi yàgg nañ ci de du du du démb du barki démb du barkaati démb. Hmm? maanaam dañuy dañ dañ naan la boo joxee dix mille ñu zéel la nga gagné vingt mille wala nga gagné cent mille buñ buñ la joxee xaalis bi boo leen joxee xaalis bi ñu ñu ñu ñu bloqué la boo leen woowee doo leen jot. ñoom ñëpp def nañ ko ay milliers de milliers de personnes. waa léegi dama ne ñooñu ñuy door xaalis bi. Hmm. ñu koy joxe est-ce que xaalis boobu. ñuy joxe ñoom ci ñoom. waa dëgg la. d'une part tamit d'une part mhm. nga nekk mag ay xale yu ndaw. waa ay booy la. Hmm. am 16 ans ci bëri ay jigéen xaalis la am na fu mu xaj ko dajale woon mën a teg nan waxante dëgg sénégalais yi ñii foo dëggee sa ndey kat ndeyu ñuy yónnee c'est la yem rek ñoo yem de nan bàyyi font yi xale moom xale moom boo nekkee sa buntu àdduna da ngay jàng da ngay jàng école wala nga liggéey mais l'argent facile boo ko tàmmee boo tàmmee l'argent facile moom musiba rek ngay dugg ay dugal dix mille nga loolu mooy lan ci ay xale yu ndaw doomu xaraam yi war a liggéey ñu toj seen cottu ndey la ñii ñëpp ñoom Ezel ak ay Ousse Mayka ba Oseek ñoom ñëpp a yam ay doomu xaraam lañ. yow yoroo dëjëw ndeyam naan da ngay carte man mi sa waay man mii damay carte. man mi paren saa yi damay dem dugal 100 euro te man du ma carte ay 20 000 francs man damay dugal 300 euro 500 euro teg naa ko fi ba taay 1000 euro mais damay perte. damay perte mais man bu ma perte am naa xaalis mais yoroo tuunu ndeyam. wax dëgg yàlla man yor naa man bu ma neexee ma carte ndax am naa xaalis man. waaw carte de pour ñuy liggéey la moom 1000 euros mais yoroo lëfal ndayam. carte sax balaa moo neex ngay liggéey sax mais liggéeyoo jàngoo defoo lëfal ndayam bëgg di carte. ah lu leen dal yéen a bopp wë. ay doomaraam lañ de. mais surtout Ouz mi. kontaan na Amina maa ngi lay déglu. ci loo nekk. ça va lépp jàmm. nice alhamdulilah. lépp taw juste dama lay wax benn affaire. waaw gis nga li nga wax sànq noon waroo koo yemale juste ci ay. ñoom ñi ay Ouz ak ay King Baba ak ay ay ay Euser gis nga ñi nga xamante ne ñoo seen xaalis war ko yóbbu feneen aadamu di ko jox booy gis nga booy vie de luxe bi ñuy wone nii amuñu dërëm liñ leen di won nag ñoom loolu la ñuy gëm ay jàppoon naa lii xaalis bi xaar ma foto ko envoyé la moo sonal booy kenn nangootul liggéey naar bi lañ top moom la ñuy xëyee moom la ñuy añee moom la ñuy reeree ku ci bëgg xaalis bu yomb naar bi ngay topp ñii nag ñooy nekk ci appartement yu rafet yi ñoo leen di flam yenn vidéo yi lu waay am yoon nekk lu waay def liggéeyutu xëy ñu gont xamal lañ def seen tim tim boo xamante ni duuraate dong lañ fi nekkee kii nga affiché ni ci ginnaaw kii mooy met osé yaa ngi dégg mais king baaba moom man wóor na ma king baaba moom bosam wóor na ma parce que gis naa ñu ko def ay ous yooyu ma mais king baaba moom bosam wóor na nekkee wuñ fi lu dul arnaqué yónnee ma lii soo ko defee gagné lii fii ku fi mun a gagné ay un million ku fi mën ah xanaa kii mooy king baaba ko ñaaw kii. kii mooy king baaba waaw ko kataf mooy king baaba. nekkee wuñ fi dul man gis naa ñoo xamante ni moom def na leen ko moom mi personnellement. Hmm. mais mais mais bu dee ki nga affiché léegi moom wóor ma Mek Ozee mais bugguñu. bamba de xaw bamba mi moom ku mu dóor da laa neex kenn xamu xamu ko mën a dóor bamba boo ko ubbi woon cërfeelam bi ay dayu nga naan nga ciy fekk pataawam bi xamul fu muy taaw. man boo ñi mu a daa wér. mais King Baba laay wax man King Baba laay wax man ñoom ñëpp ñoom gang bi la gis nga ñoom gang la gang bi nga xamante ne ñoom seen biir dañuy dóor genre réseau la dangay wax ak kii kii wax ak kii ñu ñëw ne la won la xaalis ne la lii ñoo ko jàppoon lii ñoo ko defoon bu dee nit ku sonn nga da ngay yëkkati sa xaalis dem joxe boo leen diwoo ñu lay bloqué wala dootu dootoo leen jot. kooku ma ne ko kooku sonnoo ku sonn boo yoree 1000 francs. da ngay mel ni or. Adamo leen da ngeen di sonn sonn ku ci dóor yàq ko see woon dinaa lekk sa data moo tax ñii la Adamo. ñii ah, wax leen wax ñoom cof leen ñii joxe seen xaalis ñooñu ñooy ay mbaam ndax liggéey weesuwul dof nga yëkkati sa benn mille ba nga am ne da nga koo a soppi mu nekk ay cent 800000 mënul nekk fenn ñoom buñ ko amoon jël ko seen bopp ñoom ñii buñ ko mënoon barki Seydina Muhammad duñ arnaqué kenn seen bopp lañ koy defal mais yoruñu li ñuy def nii yoruñu ci dërëm li ñuy gis ñu sol ay yëre ci réseau yi. ay lii laa am fii laa dem dinaa lekkaat sa tuunu nday yaa ngi ci di seetaan. sa yaay laay taf suba ndax ñu ngi ma koy yónnee ak sa papa dinaa xar sa data ndey képp koo bokkal dinaa ko teg fii toj sa cottu ndey bu ma paree ci yow kenn par kenn laa leen def di aviser seen yaay lekk seen data yaay ba pare dooga ñu toj ci seen ci ñëpp ñoom ñoom ñu fi nekk ñoom groupe boobu ñëpp gisoo ci kenn ku ci am sax iPhone 11 ñoom ñëpp iPhone yu cher lañu yor te nga xam ne ñi liggéeyuñ gontuñ ci dóor bi dong lañ ko mais ñi nga xamante ne ñoo leen di jox seen xaalis ñooñu ñooy ay mbaam ñooñu ñoo wul dërëm balaa maa deeti xale jigéen ñi sax dañuy carte xale jigéen ñi sax dañuy envoyé seen xaalis. joxe ñoom ñëpp carte amul kenn ko ci des ñoom ñëpp amul ko kenn koo xamante ne war nga koo bàyyi. ay king baabaak ay mek oseeg ay ay ay ay kii nii ci ginnaaw ki nga taf nii yëg xaadi mag xaw ma kan ak kan ak kan ak ak uus. seen seen dugub jeex na man kay dootuma ñoom dootuma leen dootoo déggati ñu ne la lii saa def. lii saa la lii woon de dootoo amati. lii saa mooy wax nii. man kay boo duggee kon man kay dootuma ànd teg ñoom dootuma leen fréquenté dootoo déggati ñu ne la lii saa def na lii wala lii saa tudd nañ ko si def. looloo gën ci yow nag loolu nga mën a def jàmm am de. bu leen fréquenté bolekeel seen lëfal nday seen i numéro boleke ko sax ësël boleke ko bolekeel ñëpp ësël moo gën a toccot ndayam boleke ko continué. man daa xam naa ne daal aadama moo daal loo mën a wax daal ci àddina waxal ak ñi nga xamante ne ñoo joxe seen xaalis point ndax ñii buñu leen arnaqué dañ leen a neex liñ leen di woon belle vue leen di woon moo tax xale yi góor yeeg jigéen ñi amatuñ jaam amatuñ buñ jëlee benn suite wala jël benn appartement bu bu mool xale yi jigéen yu ndaw lañ fa yóbbu ay 17 ans ay quinze ans xale yi ndaw xale yi snap moo leen fa yóbbu kii ñii kii xawma kan la gel bi